une di benn waxtu jot ca Undundu ak Diabougou nekk ca diwaanu Tambacounda ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. li ci gën a fas ba jaxate suba lañ koy defeere buñ sukkandiko ci aw mi nga ba léegi ñu téy ci dikk maître Oumar Youm ne fi ministre bokk APR di koy ñaawlu mu wax ne li ñuy xaare Ousmane Sonko ak ñoñom mooy mu jëfee li mu digge woon muy criminaliser homosexuel maanaam ku ñu jàpp ci mbirum góor jigéen dañ lay atte comme ku rey nit mu fekk nag Seydi Gassama bu am na Sénégal moom gis ne yi ba jaxate yi dafa jéggi jëye amati ci béréb bu ñuy wute or ca Tamba euh, rawatina ca Diabougou benn waay euh, dip doomu Mali la suufi mabbu ci kawam ba mu jaare fa ñàkk bakkenam jàpp nañ si ay nit ay doomu Sénégal tumuranke jamono ji ci àllu Niger bi am na sax ñenn si ñoom ñu jot fàttu ci kàddu yi njiitu Horizon Sans bu Boubacar Seye commerçant yu marché Sandaga di yëglu ñu ngi wéy di naqarlu li leen boolewul ci liggéey jëm ci defaraat seen marché boobu naqar ak tiis ci ambassade Iran bi nekk fii ci Sénégal nit ñi dafay dem pour signer livre de condoléances di téere njàll bi ñu fa ubbi euh, di lu ambassadeur ba rafetlu njiitu réewum Iran ñàkk bakkanam ci accident hélicoptère bu këpp daañu teg xibaaru tàggat yaram ni ci yéenekaay yi ak gis-gis ñuy waxtaane tey ba fan la wax sa xalaat ci ni mu la neexee yam sabab lii di mbirum Bah Diakhaté Bah kon bi ñu jàpp démb mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcc Elhadj Ndiogou Diène may Samba yaak Ablaye Diop ñoo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias yi dañ koy door ak jëye bu am ci béréb bu ñuy wute or ci penku Sénégal ca dëkk bi di Diabougou nekk ca diwaanu Bakel benn waaye nag di benn doomu Mali moo daal di ñàkk bakkanam gannaaw bi suuf bi màggee mabbe am na nag eh, ay nit ñoo xamante ne teg na leen loxo ci mbir moom le leeral yeeg ci dimanche bi ñu génn ba juróomi waxtu jotee lañu nemmeeku nemmeeku benn éboulement teen bu ñu duppee dama ci gox bi di gu nekk ci commune bu Sadatou département bu Bakel benn doomu Mali di gaskatu urus nag ñàkk ci bakkanam ñaar jëlee ci ay gaañu gaañu ci jamono yuñ doon gas nag la teen bi màbb seen kaw nag ñi nga xam ne ñoom ñooy européen yi ginnaaw bañ leen ko yëgalee nag ñu dem fa daa di leen génne kenn ci ñoom nag daa di ñàkk bakkanam ñaar ñi jëlee ci ay gaañu gaañu ñii di gendarme brigade gendarmerie bu nekk Touba ginnaaw bañ leen ko yëgalee nag daal dinañ fa dem amal li nga xam ne moom mooy constat ci kaw loolu nag la ñu ki nga xam ne moom borom site boobu di jimba makalu ginnaaw ba ñu defee li nga xam ne moom mooy euh, ko en garde à vue nag tey lañ ko fas yéene jébbal euh, kii di procureur bu nekk ci tribunal bu grande instance bu tambakunda tambakunda papu Ousseynou Diallo rajo Futur Média. Papu Ousseynou Diallo ab soxna ñàkk bakkanam ci accident euh, benn wata nag moo ko fël ci yoonu ngan kel nekk ca commune bu Kelgey ca diwaanu luga accident bi nag mi ngi am ci suba gi moom soxna soos nag amoon lu ëpp juróom fukki at néewam yóbbu nañ ko ca hôpital régional bu Louga. lu toll ci téeméer ak juróom fukki doomu Sénégal tàggatémbe jamono ji ci àllu Niger bi ñoom nag dañ doon mbëkki bëgg dem tugal loolu nag daal leen di dab ah, buñ sukkandiku sax ci njiitu Horizon sans frontière am na ñenn ci ñoom ñoo xam te ne mujj nañoo fàttu ndax sonn xiif ak mar ah, tax sax ba ki nga xam te mooy Boubacar Seye di woote walu ñooñu doomu Sénégal yooyu ñu delloo si leen ci ni mu gën a gaawee dañ koy déglu moom Boubacar Seye ci jokkoom ak Awa ay doomu sénégalais yu ci ak juróom plus de 150. cinquante ñoom ñëpp ay candidats à l'immigration clandestine ñoom ñoo nekk ci situation bu metti dans le désert au Niger à Samaka, Arlit Agadez ak depuis pratiquement plus de trois mois. C'est la police algérienne moo leen jàpp torturer leen malmener leen expulser vers le désert. la le porte-parole monsieur Thiam étudiant en troisième année à l'université Cheikh Amadou Kane Cheikh Ahmadou Kane moom la ñu wax. am na ay ñu ci ñu parce que ñoom dañu nekk ci àll bi ci désert bi euh, yorewuñu ndox bu bëri seen lekk doyul ba pare dafa tàng loolu moo ñu ñaax les l'État du Sénégal les nouvelles autorités euh, ñu dem jëli parce que ñoom loolu la ñu ñaan nañ leen jëlee ñu pour euh, parce que sonn nañu trop ci waneen tamit encore une fois l'état du Sénégal les nouvelles autorités le plus rapidement possible nous convoquer des assises de la migration loolu daf ñu mën a permettre tey euh, pour fexe nan la ñuy euh, réduire les risques c'est-à-dire que xale yi nga ni ñi nga ni toujours malgré ce changement de régime que tey euh, seen destin fii ci dëkk bi la nekk ñu fexe ba nañ leen di mu nekkoon euh, Boubacar Seye di njiitu kuréel gi di Horizon sans frontières inaax tegal euh, juróomi minute sanc sañ fii laak Daaru Salaam ak RFM kumpa jeex na wéy ci xibaar yi wax ci mbirum activiste bi di Bah Diakhaté moom moomu nag nga xam ne dafa jege nguur gi fi woon di nguurug mag Sall ñu dikk daal di koy teg loxo nag démb gannaaw ay euh, vidéo yoo xam ne da ko defoon euh, di nag euh, wax Ousmane Sonko taxawaayam ci mbirum ngóor jigéen gis na sax dafay kañ mbirum ngóor jigéen tax ñu teg loxo moom nag bu ñu sukkandikoo ci kenn ci avocat suba lañ ko fas yéene defeere gannaaw bi nga xam te ne démb ba léegi mi nga foofule ca dikk di.

dafa rafetul deful dara ba jaxate deful dara dafa wax li nga xam ne ñëpp xam nañ ko euh, li mu wax tamit daf ci indi ay preuve yu leer ndañ donc kenn mënul wax ne li mu wax du dëgg li mu wax dëgg la ki muy wax kooku dafa nekk ci parti am fa ay responsabilité li ñu ko génne ci armée aussi génne na ay preuve am ne lii moo tax ñu génne ko ci armée bi mais kon lan la def maintenant bu ñuy jéem a sonal nit ñi ci ay ay ay wax ak ay yooyu ñun dañu yàgg di ñu tooñ di ñu tuumaal ci ay affaire homosexualité bañ naa ko ba dama demoon finalement assemblée nationale ma jël kàddu ma ne ñu ngi nekk fii incha allah dépénaliser homosexualité nekkul ci suñu ordre te duñu ko def ñun bi ñu ko waxee dañ ko def parce que toog nañu assemblée ba génn fa ci jàmm te amul benn loi buy nuru luy luy daganal homosexualité mais am na ñeneen ñu jëloon ay engagement ne dañuy criminaliser homosexualité tey ñu ngi ci ay logique de tolérance de l'homosexualité mais loolu mooy débat bi donc bu ñu sonal nit ñi ci ay wax yoo xam ne amul bopp amul génn parce que ñoom tey ak Sénégal fi mu toll li ñu war a def mooy concentrer seeni effort ci ci génn réew mi ci ci goutte bi mu nekk génn réew mi ci difficulté bi wàññi comme ko proposé woon ceeb ak diwlin ak suukar

ak euh, maître Massokhna kan di avocat euh, bokk ci avocat yu Ousmane Sonko moom nag nee nañ euh, kii nga xam te ne mooy Bah Diakhaté kat yi mu wax ëpp na yoon la ñu daal di koy teg loxo maître Massokhna kan doonoon tey gànnu ko RFM matin. waa ñun pour le moment ñu wax ndax jaadu na wala jaaduwul li ñu mën a wax mooy. nit dafay assumer ay waxam. parce que Sénégal rek lañu fi gis réew moo xam lu neex waaye wax. lu neex waay def. te dara lu ci fekk ba ñu bëgg dara lu ci fekk mënul amul ci benn réew foo mënti dem ci àddina bi nit bon defee say déclaration da nga koy assumer manam li wax lo ci góobe gar lolou moy yoon mais mun lo def ay déclaration yu graw ci ay nit ba pare bëgg ni kenn du la topp nit ki mën na la top yoon mën na la top donc lolou la rew mi dafa am yoon donc il faut qu'on applique ça waaw nit ku nek sañ nga wax lu neex mais nga assumer ko donc mom la mu waxoon mën na assumer comme tay aussi li nit wax mën nako assumer daf ko wara assumer mo jangal gars dal daal mako ma ko noonu waaw mu nekkoon euh, maître ma Kane kandi avocat donon tey gannuka Babacar Fall ak Mouhamed Ali mu baax ci euh, RFM Matin keneen ka joxe xalaatam ci mbir moom di euh, Seydi Gassama bokk ci ñi saytu ak ak yelleefu doomu aadama moom directeur exécutif bu Amnesty senegal gis ne euh, ba jaxate kadd yi mu yëkkati ñaaw la noonu te tamit jéggi na dayoo teewul nag muy sàkku ci kilifa yi yor réew mi léegi ñu bañ a nag def nii fi woon di ko wax sa xalaat ak ñu daal di jàpp tëj kaso dañuy déglu kàddu yi Seydi gasama kàddu yi nga bi teg ko ci ndeeru Ousmane Sonko di kaddu yoo xam ne kaddu yu ñagas la kaddu yu yu ñàkk tegin la waaye ñun suñu position euh, position boobu changé wul même position la moom la amoon ci jamono Macky Sall position bi nag dañ ko teg ci kaw yoon yoon mooy décision yi nga xam ne moom la tribunaux yi nekk fii ci Afrique euh, rendre pour muy tribunalu CEDEAO muy tribunal boo xam ne moo ëmb réew Afrique yépp tribunaux yooyu yépp dañoo jox ndigal état yi pour que ñu bañ di jàpp ay nit di leen tëj ci kaso parce que simplement dañuy yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci ngam ñoom ñu jiite réew ndax dañuy estime que ci biir démocratie n'est-ce pas genre kàddu yooyu mënul ñàkk mënul ñàkk comme que mënul ñàkk nag waruñu di ci tëj tëj nit ay biir kaso ni su la tegee ay kàddu yoo xam ay diffamation la wala lu mel ni euh, publique mun nga ko topp au civil n'est-ce pas mu fay alamaan n'est-ce pas loolu doy na sëkk pour réparer préjudice bi nga xam ne moom lañ la teg te loolu encore une fois juridiction une nekk ci biir Afrique ñoom ñoo ko rendre wax nañu ko pouvoir yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ci bopp réew mi n'est-ce pas nañu bàyyi tomber ci piège bi nga xam ne la Macky Sall tombé woon jàpp nit di tëj simplement parce que foo kàddu yoo xam ne neexu la nga tëj ko loolu je crois que baaxul dañ ko war a éviter à tout prix gis naa dugal na ci ay diffusion de faux nouvelles loolu mooy dañ ko bëgg dugal ci biir kaso parce que diffusion de faux nouvelles nee nañu sur les procureurs dafa

mu nekkoon euh, Seydi Gassama ci euh, Amnesty euh, Sénégal wax ci leneen ba léegi jëm ci wàllum yoon ak nag yéeg ak wàcc faral di am ci tribunal di commerce ay nit ñuy jëflante loolu naka la ñuy waxtaanee naka la ñu fexe daal ba waxtaan bu juboo daal di am diggante ñiy seq mbir yi tax sax tey jii ab ndaje la ci tribunal di commerce bu Dakar di amal nee na nag loolu mooy yoon bi gën waxtaan bu juboo diggante ñaari wàll yi dañ ci déglu Mademba Guèye directeur CFJ centre de formation judiciaire ci micro Koumba Sandiane Faye. bi njëkk mooy dafay tax dafay gaawal bi ñu amee problème ñu gaaw ko réglé contrairement bu dee tribunal nga xam juge bi si boppam euh, dafa am ay ay ay loi yu ko tënk. ba il est obligé mu respecter procédure il est obligé mu observer délai yi nga xam loi bi moo ko moo ko médiateur bi nag amul yooyu contrainte yëpp moom moo gën a euh, ba pare. ñi nga xam ne ñoo am problème ñoom seen bopp ñooy waxtaan euh, bien sûr dina am médiateur bi nga xam ne mooy nekk fi moo leen di jàppale pour xool ndax li ñuy bëgg tëral euh, comme solution amul dara li nga xam ne jéggi euh, jéggi na yoon wala loo xam ne maanaam gaañul kenn mooy li ñuy wax problème équité c'est pas inéquitable donc yooyu rek lay xool mais sinon médiation moo gën a gaaw. non gënu cher loolu yaakaar naa dañuy dañuy jaawale médiation ak arbitrage souvent arbitrage lañuy def bobu reproche ne dafa cher parce que dañuy désigner ay ñetti arbitre yo xam dañ leen di fay médiation beaucoup moins c'est beaucoup moins cher et c'est plus rapide te xam nga bu affaire affaire xaalis la affaire affaire en affaire en matière de business comme on dit dañuy wax ne temps bi xaalis la parce que lo gëna tok toog gën la porter préjudice sur le plan des affaires donc médiation à tous les coups moom dafa am avantage pour nekkoon Mademba Guèye directeur CFJ centre de formation judiciaire ci ndaje euh, bi ñu doon amal tey jii ci suba fukki minute ak euh, ñett su tegu ci une ca marché ngelaw marché Sandaga ak marché Tilène. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. dem sax ba marché Sandaga ñii di jaaykat yi ya fa nekk ñoom mer la ñu def ndaxte ñoom dañoo gis ne ah, defaraat gi ñu defaraat marché bi ah, mairie bu dakaar Plateau boolewu leen ci di loo xamante ne nag dañ koy ñaawlu bu baax a baax ñoom sax tey jii dañ fa bëggoon a dugg waaye da chaque fois nee na danañ koy tere ñuy naqarlu bu baax a baax mbir moomu tuumaal ci nag maire bu dakaar Plateau Alioune Ndoye dañ ci déglu Daouda Diouf kenn ci ñi yor marché Sandaga seen i njit ah, ci micro Fama ku ne xam na ne gis nañu ne travaux yi mu ngi nii chantier bi mu ngi avancé bu baax a baax mais depuis ñu commencé chantier bi ba léegi ànd taxawu Sandaga mu ngi demandé audience ak ñi mu ko seqal muy les autorités mais boobu ba léegi amuñu ci liñ ci doon séntu ci ñoom comme nag dañu nu jiital ñu ànd ak suñu waa marché gis nañ ne travaux yi mu ngi bu baax te séen nañu ci yenn yoo xam ne wóoluwunu ko moo tax ñuy def alerte bi ñëwoon tamit tey pour di def visite chantier bi mais comme ni ko ni ñu ko waxee rek loo dafa am fu muy jaar ñi fi nekk dañ leen ñoom seen i kilifa dañoo génn nekkuñu fi du ñu mën a bàyyi ñu accès ci biir wax nañu leen nag ñoom ñu yëgal leen pour li nga xamante ni tamit moom la ñu warlu muy ñu xam li ñu ñuy defal ah monsieur le maire nag yàlla dafa dogal moom mu nekk suñu kilifa yàgg di liggéey ci dëkk bi ba yàlla dogal projet bi tege ci loxoom te mu nekkoon ñun ci suñuy loxo ndax ñun ñoo porté projet bi ba yàlla dogal mu yegsi fii mais mënuñu taxaw ne suñu waa marché bi tey ma liggéey bi fii la commencé fii la doore fii la toll te loolu bu nu ko saytuwul léegi bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga danañu tooñ suñu waa marché te danañu yàq tamit loo xamante dootuñu ko mën a defar moom moo taxoon tey ñu def alerte bi pour tey nu ànd ak waa marché bi yëgal leen ne kat sànn yii kat ñu ngi koy liggéey travaux yi mu ngi dox dafa war a ñëw toog ak ñun ak waa marché bi ñu waxante wax bu leer nañ pour ëllëg lu fi am danañ xam ne kenn ku nekkat bañ koy def waxoon nañu la xamoon nga na mu demee yaa ngi ko doon gis mais bu ñu liggéeyee nag ba mu pare te la mu war a na mu war a mel melu ni te nun yëgluwunu su boobaa dañuy tooñ te bëggunoo euh, di kenn ci kilifa yu ànd taxaw Sandaga wax ci napp gi ak euh, ñi nga xam ne ñoo ci yëngu ci diwaanu Jifeer ñoom nag ñu leen di gën a ngir rek ñu moytu lépp loo xam te ne ak sart napp gi fii ci réew mi loolu nag dina mën a tax ba ñu moytu jafe-jafe yi faral di am diggante nappkat yi leeral kam am na sugu caabi ci Sénégal nag pêche artisanale bi nag dafa am ay yoon yuñ ko tënkee waaye nag ba léegi am na ci acteurs yoo xam ne duñu respecté yu ni mel ndaxte léeg-léeg gaal yi ñuy yóbbu waa sax matériel yi ñuy utiliser du tegu benn yoon ci yoon te loolu nag léeg-léeg dañ koy def ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñooy surveiller géej gi Diamé Ndiaye inspecteur des pêches la à la direction de la protection et de la surveillance des pêches waaw jalgati bi moom bëri na lool lool lool lool boo jëlee lu mel ni gaal képp kuy napp biir géej di gaalu looco amuloo permis amuloo numéro wax dëgg yàlla yaa ngi def jalgati loolu pêche yeneen lañ ko tuddee waaw wala nga yor mbaal moo xam ni wóor na lay bëtu mbaal baaxul kooku aussi bu fekkee mbaal mi ngay utiliser respecté wul réglementation bi pêche nan ngay def. conseil locaux de pêche yi nag ñoom ay at a ngi nii dañ leen boole ci kuréel yi nga xam ni ñoom ñooy surveiller géej gi kuréel yooyu nag ñu leen di woowee brigade de surveillance participative nappkat yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci jëfeer dañ leen doon tàggat ngir rek yokk seen xam-xam ci nit ñi mën a surveiller géej gi ñu ko def ci benn projet boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy gën a aar ressources yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci géej gi Sénégal yi liñ ci namm nag mooy xeex lépp luy napp wu teguwul teguwul benn yoon ci yoon. tax na ñu mën a won gars yi nan la ñuy doxale mission boo xam ne dafa war a dem saytu ci biir géej wala ci tefes gi bu gaal yi dee teer jàngal nañ leen aussi yan jëlgati ñoo nekk euh, ci mbiru nappul looco ak nan lañ leen di contrôler géeju jifeer gi nag am na ñu bëri ñuy wax ni bokk na ci ëpp jën ci Sénégal moo tax nag day am yeneen nappkat yu jóge ci yeneen i gox ñëw di fi nappee léeg-léeg nag ay jafe-jafe day am seen digganteeg waa CLPA bi moo tax u seenu Thiaw mi nga xam ne moom moo jiitee CLPA bu jifeer di wax ne formation bi ñu leen defal dana tax ba xiiroo yeeg ngaayoo yi wàññeeku ñi nga xam ni noonu noonu la ñuy wàlloo ku def accident ci géej gi itam nañu leen ko sapeur yi nag la ñu woowoon ngir ñu jàngal lu ni Sud FM. Aminata Goudiaby bu ñu jógee Fatick dellu si ci Ndakaaru pour Daniel wax nag ci kayam njaal ba ñu ubbi ci ambassade Iran bi nekk fii ci Sénégal loolu nag gannaaw génnuk àdduna njiitum réewum Iran di euh, président Ibrahim Raisi mom nak mu faatu barki démb dimanche gannaaw bi nga xamante ni bi mu duggoon moo daal di daanu nee na nag ak xew sax daañu ko amal ngir sargal ko moom njiitu réew Iran bi woon na samedi bi lay doon wante nag ki nga xamante ne ambassadeur Iran bi Senegal rafetlu na bu baax a baax ni leen euh, Sénégal jàppale ci jamono ji tiis wi ñu njiitu réew Sénégal di Bassirou Diomaye euh, Faye dañuy déglu ambassadeur Iran bi ci Sénégal Hassan Asghari euh, ci micro Nafissatou Sila. donc selon les protocoles nous avons eu des entretiens avec notre nag doon génne àdduna di Ibrahim Raisi protocole bi jàppale woon nañu nag ba ñu jotaa waxtaan yooyu nag moom ak ñi xam ne nag ñooy ministre des li ñu waxoon moo daal ñu continuer coopération bi ak ñi nga xam ne nag ñooy réewu Afrique yi te suba sax dina ab cérémonie officielle boo xam ne dañ koy def ngir daal di amal ay njàll waaye itam fàttaliku ki nga euh, xam ne nag moo di dem si yàlla si euh, nekkoon suñu njiitum réew di Ibrahima euh, Raïsi ak ñi nga xam ne nag mooy ministre des affaires étrangères bi ñi nga xam ne ñooy kilifa réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak nguuram ñoom sax jébal nañu seen ak njàll ñi nga xam di askanu Iran waaye itam fëddeel li nga xam ne moo di seen njàppale si jamono ju métti gi nga xam ne nag ñu ngi nekk di ko dund kiis gi nga xam ne amee nañ ko jamono ji président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sax moom bëggoon naa teewe li nga xam ne mooy ndaje mi ñuy amal ëllëg ngir daal di fàttaliku itam delloo njukkal suñu président ba woon di Ibrahima Raïsi ñu ngi koy jaajëfal bu baax si lettre de condoléance tamit bi nga xam ni jagleel na ko réewum Iran. à travers le, le, la communiqué, et la lettre de condoléances qu'il qu qu qu nous a envoyée. mu nekkoon Hassan Asghari yi di ambassadeur bi togo réewum Iran fii ci Sénégal Boubacar Dieng deon kette ay kàddoom euh, ki nga xam sax mooy ministre Sénégal bi ñu dénk wàllum bitim réew euh, soxna si di Yacine Fall demoon na sax sànq foofa euh, ca ambassade Iran ngir yegge leen njaalum Sénégal daan ñu ci dellu si ci seen yeneen xibaar su ndaw lañ fa teewalan di Nafisatou Sila RFM bitim réew. xibaaru bitim réew bu Boubacar Dieng lañ ci àndal Boubacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Dieng. Côte d'Ivoire lañ koy tàmbalee foofu nag tàmbali neen démb dëjëk président ba fu woon di Henri Konan Bédié. ni nga ko waxee noonu la dëj yooyu nag ñu ngi ko tàmbali. Euh, démb te mu war a dem ba ñaari fan si weeru juin atum 2024 bi ñu nekk Eh, ki nga xam ne nag moo di Arinconan Bédié nekkoon fa njiital réew dafa daal di faatu benn fanweeri août atum 2023 bi ñu génni daanaka nag benn ay bés la ñuy amal boo xam ne ab dëj la te kilifa yu bari nañ fa daal di teew démb sax biñ koy door ñi nga xam ne nag ay cadre lañu te bokk ci parti politique bi nga xam ne moo di parti démocratique de Côte d'Ivoire ñu ko xam gën ko xam ci PDC yi te nekk ci kujéeg politique gi ñoom nag teewoon nañ fa ngir jébbal seen ak njàll nga xam ni moo nekkoon soxna nak euh, Henri Konan Bédié di Henriette Konan Bédié ba léegi si réewum Côte d'Ivoire foofu la nag si euh, bët gannaaru réew ma ñi nga xam ni nag euh, ñooy farande yooyu Alassane Dramane Ouattara jiite réew ma dañ ko doon delloo njukkal li nag ñu ngi ko amal si ay yoo xam ni daanaka dafa niru li nga xam ne mooy meetingu campagne présidentielle ki nekk nag euh, jëriñ ju dénk wàllum défense foofu la si Côte d'Ivoire moom sax teewoon na fa di tenne Ibrahim Ouattara moom yëkkati na ay kàddu yu euh, kawe lool euh, teg ko si ki nga xam ni nag moo di jiitu réew mi Alassane Dramane Ouattara di ko sant di ko gërëm waaye itam jàpp ni amul président bu ko gën a gum si Côte d'Ivoire jamono ju ñu nekk El Hadj Ndiogou wax eh, ci ay jafe-jafe ci benn avion bu jógewoon Londres war a dem Singapour am na benn doomu aadama bu ci ñàkk bakkanam ak eh, ñi ci jëlee gaañu gaañu. xibaar bi ñi ko joxe moo di compagnie boobule ñu ko gën koo xam si Singapore Airlines ñoom nag ak bataaxal lañ daal di génni di jébal seen njaal ñi eh, njabootu ko ki nga xam ne nag moo ñàkk bakkanam gannaaw bay jafe-jafe amoo amee si vol boobule. ñu ànd si leeral yi ak Soda Thiam. gannaaw ab forte turbulence nag ci gannaaw ab forte turbulence nag benn doomu aadama moo daal di ñàkk bakkanam ak lu toll ci fanweer nit yoo xamante ni jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ci vol boo xamante ni mu nga jógee ci Londres jëm ca Singapour waaye nag Boeing 777 300 air boobu nga xamante ni Singapour la doon jëm dafa daal di mujjee wutali Bangkok niki tey ji ci suba bu ñu sukkandikoo nag ci BBC 30 blessés la ñu daal di wàññi ci 211 passagers yi naka noonu ak 18. membre de l'équipage yi ci ab communiqué de presse nag Singapore Airlines daal dinay yónnee njàll famille ka nga xamante ni moo ci ñàkk bakkanam waaye nag compagnie bi bu fekkee ne firndeel na ni am na ay nit yu ci amee ay gaañu gaañu ak benn doomu aadama bu ci ñàkk bakkanam ba léegi waxul la gaañu gaañu yooyu le dayo bi nu mu toll ak tamit ki nga xamante ni moo ci ñàkk bakkanam ndax ci passager yi la bokk wala membre de l'équipage ci noonee nag compagnie boobu tamit xamle na ni autorité locale yu Thaïlande ña ngay def seen kéem kàttan ngir indil la ndimbal lu war te ña nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla waaye itam daana yónnee ab équipe foofee ca Bangkok ngir taxawul leen ci tarmac aéroport bu Suvarnabhumi ay ambulance yu bëri lañ fa daal di nemmeeku yoo xamante ni dañoo ñëwoon na di jël si ñi nga xam ne ñoom ñoo di passagers yi ministre des transports bu Singapour di Chee Hong Tat naqarlu na ba fu mu munti yam jëye joojule ci noonu itam ministère des transports bu Singapour naka noonu ministère des affaires étrangères bu Singapour ak autorité de l'aviation civile bu ñoom it ña ngay def seen kéem kàttan ngir indi seen ndimbal passager yi nga xamante ni amee nañ ci gaañu gaañu ak seen i njaboot. Soda euh, Thiam bu euh, baax dañuy dem ba Amérique foofu nag euh, président ba Joe Biden Joe Biden moom di défendre Benyamin Netanyahu premier ministre Israël bi nga xamante ni ne CPI di cour pénal international daf ko sàkku mandat d'arrêt maanaam ñu teg loxo gannaaw ñaata fiyeef ñu def ca Gaza. moom nag li mu xamle Joe Biden moo di nag li Israël nekk di def ci bande de Gaza mënuñu ko méngale ak kuy jéem a faat ak xeet maanaam daal faagaagal leen ba ñu jeex tàkk euh, lii nag mu ngi koy wax bàyyi xel ci li xew ci Palestine kaddu yi nag euh, Joe Biden mu ngi koy yëkkati démb leen loo xam ne tamit njiitum réewum États-Unis yokk na ko ci moo di ñaawlu mandat d'arrêt bi nga xam ni procureur bu Cour pénale internationale bëgg na ñu teg ko ci kaw ki nga xam ni moo di Benjamin Netanyahu nekk foofu la si Israël eh, ngir ñaawteef yi nga xam ne nag seen ab larme mu ngi koy def si bande de Gaza njiitum réew mu Amérique yemul foofu leen ndaxte dafa jàpp ni euh, fu procureur bu cour pénale internationale dafa doon loo xam ne nag xel mënu ko nangu te tegu ko fenn keneen koo xam itam yëkkati na say kàddu te féete si Amérique moo di ki jiite seen ab diplomatie di Anthony Blinken moom nag dafa jàpp ni anam bi nga xamee ni procureur bu CPI mu ngi koy doxalee ak gàcce la si li nga xam ne nag moo di cour pénale internationale waaye nag si ak fàttali si atum 2023 cour pénale internationale sàkkoon na rek ak mandat d'arrêt ngir ñu teg ko ci kaw ki nga xam ne moo jiite Russie di Vladimir Poutine moom nag liñ koy jiiñ maanaam mooy daal faat ay nit yu bari loolu ci guerre bi nga xam ne nag réew mu ngi koy amal fi nga xam ni moo di réew Ukraine te ñuy door ko boobaak léegi mat na ñaari at. jaajëf Boubacar. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal ci Diagne Diagne maa ngi maa ngi lay fay as njogu. football lañ koy tàmbalee ak entraîneur équipe national bu senegal Aliou Cissé war a jon ak taskati xibaar yi ci jeexitalu ay bés bi. àjjuma bu fukki waxtu ci suba jotee dina daje ak gaañi ci WDN bi fii ci Ndakaaru ngir xibaar gaañi ñi mu jàpp ni ñooñu mooy ñi war a teewal senegal ci jongante yi war a dikk juróom benn fan ci weer wii di ñëw ak juróom-ñeenti fan ci woowile weer. Euh, app bu njëkk ba Sénégal ARD Congo lay doon app wa ca topp Sénégal Mauritanie ca Mauritanie lay doon yi bokk ci natt gi ñu war a def ngir xayma ñi war a teew ci coupe du monde 2026 ba ca réew États-Unis Canada ak Mexique ñu jàpp ni kon dana topp ndaje moomu incha allah dañuy wax tamit euh, ci tournoi IFOA A euh, di euh, tey la ñuy wéel première journée ba. ci poule ci poule bee ba la ñuy daal di amal ay jongante tey ni ñeenti waxtu Libéria Guinée Conakry daanu laale ci stade Lat Dior bu ñu ca nappee timis di waaj a teru Mauritanie moo dee laale ak réewub Sierra Leone ci ndoorteel gi nag Sénégal daf ca daal di jongante ak waa Gambie dóor leen. ñaari bal ci dara loola ci poule A bi la ko organiser yëf yi na mu xewee ak lépp na mu ci yoon kanu dénk tournoi bi ak euh, doxalin sun tournoi UFOA zone A bi ni euh, yëf yi dal na xelam soo de caam jot na ak moom lu ñeel la ñaareelu édition tournoi UFOA A bi lépp lu ñu doon ci ubbiteg tournoi gi gis nañ ko bu ñu sukkandikoo ci directeur exécutif bu union des fédérations ouest africaines de football di Mapate Gaye Euh, di ci am mbégte ndax euh, tàmbali nañ ko ci jàmm condition yëpp mate na ak euh, commission compétition ak département compétition waajaloon nañu jongante bi ba ba permettre ñu mën ko démarrer ci ay anam yu baax. moom patron zone ouest A bi nag bëgg na relever ab défi ci édition bi nga xamante ni bi la yoon na juróom-ñetti équipe ñoo koy amal uteeg bu njëkk ba nga xamante ni ñeenti équipe nañ ci gisoon. ren lu lu doon suñu mébét mooy ñu dajale juróom-ñeent ñeenti équipe yu composé euh, zone bi yëpp waaye euh, juróom-ñett lañu ñu mujj am ndax Cap Vert mujjul bokk mais ba tey ak juróom-ñetti équipe yaakaar nañu am tournoi bu neex euh, tournoi ba nga xam ne dina tax euh, équipe yi ci bokk yëpp mën a jongante ay ay match yu bëri loolu daf leen di permettre ñu mën a préparer yeneen jongante yi di ñëw. en tant que directeur exécutif zone bi nag moom Mapate Gueye di dellu si te la muy xaarandi ci édition gile. yaakaar biñ ci am mooy def tournoi bu neex tournoi bu baax tournoi ba nga xam ne dina jëriñ équipe yi ci nekk yépp ñu mën a préparer seen seen seen compétition ke yi di ñëw surtout yu demee ni que euh, compétition africaine yi wala compétition coupe du monde sénégal mi nga dafa euh, titre en jeu am dugg si gu rafet Niki ki démb gannaaw ba mu daanee équipe bu bi ñaari bal ci dara ñoom ngay ndekk u20 yu jigéen yi nag niki ki àllarba ni ci gi la ñu amal sen ñaareelu jongante nara dox seen digganteeka Guinée Bissau bu 19 ca stade Lat Dior bu Thiès. Soda Thiam lal dañuy wax lu soxal léegi wàllum boxe ak ñi daan boxe nekk ca yëmbal ñoom nag bëgg soxali boxe foofu le loolu ñu ngi ko waxee gannaaw ba mu amee ndaje mu dajale woon gone ya foofa ngir ñu leen di seet ak jéem a tenqe ci ñoom ñu war a mën a tàggat ba yóbbu leen ci Jeux olympiques yi war a xew ci Sénégal ci atum 2026 mais nag bu ñu leen jàppalee jox leen jumtukaay mën nañoo tàggat ay boxeurs yu xarañ ñu a tas àdduna Aminata Ba. ñaar fukk ak ñeenti combattant jóge ci école boxe yi ci équipe nationale wala sax nekkoon ay boxeur ñoom ñëpp nag ñu daal di bokk ci bile tournoi di événement boo xamante ne nag li ko yëkkati mooy daal di dundalaat boxe ci banlieue bi Ibrahima Wade di initiateur bi la événement. juste pour que wane valeur bi nga xamante ni moom la boxe am. banlieue bi ay champion ñi ngi fi. danoo dese jàppale. fallait que ñu tabax ay centre de boxe. tekk ay jumtuwaay yoo xamante ni ndaw yi yëngatu ci boxe dinañ ci gis seen bopp doon loo xamante ni lu jaadu la bu ñu sukkandiku ci Charles Faye bokk ci délégation président bu fédération bi. xale yu nekk fii ci biir banlieue bi mun nañ bokk dañ leen war a fekk si ñoom luñ bëgg jox leen leen ay infrastructure pour ñu walee seen bopp champion yi fa lay gën ci ñetti at yi mujj fédération sénégalaise bu boxe nekk nag di teg ay pexe ngir gën yëkkati bi li discipline waaye nag ñàkkub ay infrastructure nekk équation bu rëy ci boxeur yi buñ sukkandiku ci njiital fédération bi di Mamadou Mamouna Sène Sénégal dafa jël décision defaraat stade yu bëri donc fépp foo xam ne dañ fa amoon ay bureau wala loolu dañu fa génne maa ngi doon bind yàggul rek ministre bi pour ñu abal ñoo fu ñu stocké malheureusement loolu sax mënuñu ko am trouver cadre bo xam ne fa mëna def sport dafa metti actuellement ci infrastructure yi nga xamanteni ni moo Sénégal maintenant soxla nañu ay aide ci formation bi soxla nañu aussi ay aide ci infrastructure ci monsieur de maire bi nag engagement ngir dal di taxawu ci wàllu koppar ak club box yi nekk ci commune bi ay jumtuwaay itam dañ ko dal di tabax ngir dal di développer bi les disciplines sportives Aminata Ba Massar Radio Futurs Médias tubarkal aj njogu mhm. maa ngi dem daral ba doxantu foofu waaw waaw jot na de dalal sama xel bàyyi ci xel waaw waaw <laughs> ma dufal dufal say bët dufal say bët am na tax na jërëjëf direction de la santé mère ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Bah di activiste bi waa dig teg loxo démb la yéenekaay nee nañu mooy détenu politique bi ñu njëkk jàpp ci nguurug Jomaay Sonko lii quotidien ne ko te muy dëgg tigi premier détenu politique bu régime Jomaay Bah la tudd tuumay offense au premier ministre mooy li ñu koy toppe génn gum fi génnoon doon wax dem jëli ko enquêteurs yi déglu nañu ko ci diir bu yàgg vidéo yi wala coow li weddul benn yoon ci enquête ba ne moo ko def wax ja ca nekkit moo ko wax laaj yi ko enquêteurs yi doon laaj yëpp journal bi ne nañu tontu na ci kanamay awakaam avocat yi tolloon ci juróom journal bi duñu limal maître El Hadji Diouf moom Bah Diakhaté l'observateur nee nañu am na ñu muy demee ñu defeere ko tey ji ca kanamu procureur ba libération nañu tey ci talaata ji ci lañ koy defeere de la république les économies te donte génnewul ay preuve terewul li ñu koy tuumal lépp la assumé bu weesoo ba jaxate moomee ñu jàpp Les Échos mi ngi ñuy xibaar yi ne imaam Cheikh Tidiane Ndaw moom it ñoo ngi koy wër jamono ji mbirum góor jigéen ci réew ñu journal Tribune xëy na di méngale taxawaay bi ci Macky Sall amoon ba muy doon président de la République ak taxawaay bi ci Ousmane Sonko am bi mu doonee premier ministre Macky lim ci waxoon journal bi nee nañu mooy dane woon moom wax mooy manes naa masla ak ñoom Mame Matar Gueye bu ANC Jamra ni Sénégal ci xët bu njëkk Vox Populi mu fay dolli moom di xamal kii di Ousmane Sonko boo bëggee dellu gannaaw ci criminaliser ak ngóor jigéen ci réew mi ñun danañu taxaw jàmmarlu ak yow ni ñu ko defee woon ak nguur yi fi ne woon ca doon jëm lu ni mel bés bi le jour nañu activiste bii di Bah ma nga ci loxo yoon ndax tuumaay offensé premier ministre Mame taxaw fëgg ci taabal ji li Ousmane Sonko wax du fi amee ba àddina duy tukki ak ngóor jigéen dee su ko toléré ci réew mi journal mi ngi ñuy baaxee ci xëtamu njëkk cadre jibi jaxate xëy na jaxate ak ndëgg sërëx maanaam piège moom la gis ci yëf yi mu di piège boo xam ne buñ ci daanoo ci banaliser mbiri góor jigéen ci réew mi ci la jëm professeur jibi jaxate ne Barack Obama bu ñëwee fii ci Sénégal di ko fi tudd Jean-Luc Mélenchon moom ñëw ci réew mi bu yàggul di ko fi tudd seen yéene mooy bëgg fee bàyyi coow le ngir ñu koy waxtaane ñu waxtaane mbir meneen mu journal xëy di waxtaane enquête mi ngi ñu ak salfaañoo xët mu njëkkit moom enquête bu chamboulement amee ci biir magistrature bi kan mooy wuutu Ali Siré Ba ca cour suprême ginnaaw magistrature bi Walf Quotidien gis na ne soldats yi fës nañu lool ci projet Diomaye ak Sonko bi fu ko teg nee nañu mooy gis nañu ay officiers supérieurs yu ñu tabb ci gouvernement bi def leen ministre boole ceeki dégg nañu ñu ne jiw yu ñu war a séddale baykat ci loxoy soldats yi la koy teg l'observateur xëy teg ay gëtam ci wàllu xëccoo wi Amadou bo di doxé diggam ak wa APR yu occupé terrain bi lolé journal mi ngi koy jangat ak xex bi ñu nara gis ci réew mi ngir xam kan moy doon chef de l'opposition Monseigneur Benjamin Ndiaye mom le Soleil national xey ci xëtamu njëkk pèlerinage marial bu Popenguine bi jeex dembu journal bi xëy na ci dellu bolé ci ak fessel ci xëtamu njëkk kaddu yu Monseigneur Benjamin Ndiaye journal l'info nañu kaddu ya mudi di homélie ga dégg nañu ci dundugu gu seer gi dégg ci walu pauvreté mudi ak ñàkk dégg ci jamm dégg ci mbiri justice direction de la santé mère enfant ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Ibani Gif Gif. yegg si léegi ci gis-gis euh, tey nak li ni waxtane jëm euh, ci walu sañ-sañ wax sa xalat ba fan la yem euh sabab li di mirum euh, ba jaxate ngir waxtaan li ñu mel nak dañ ci and ak Déni Ndour Déni Ndour di ñaarel njiit bu LSDH Ligue sénégalaise des droits humains Déni ni ngi la ñu maa ngi leen di nuyu di leen sant El Hadj Ndiogou jërëjëf naa ñaan tam ci waxtaan wi ak professeur Ousmane Sène directeur WARC centre ouest africain de recherche professeur ñu ngi lay nuyu professeur Ousmane Sène euh, teewagul laataa loolu dañuy ànd ak Ndour Ndour euh, démb ba léegi ki nga xam te ne mooy mi ngi ñu jàpp ci dikk loolu gannaaw ay vidéo yu mu defoon di ŋàññ euh, premier ministre Ousmane Sonko ci taxawaayam ci wàllum homosexualité sa gis-gis d' abord ci jàpp kooku ñu ko jàpp loo ci xalaat. waaw li ma ci xalaat que ne daf ñuy delloo rek ci euh, euh, bi nga justice donc dama jàpp ne lépp justice moo ko dañu war justice mu def parce que comme dañuy phase euh, enquête donc jàpp naa ne mënaguñu yëy yàbbi waaye li bëgg wax que liberté d'expression waaye bu ñuy wax sañ sañ wax li nga xalaat loolu dafa nekk loo xamante ne euh, yoon moo ko maye maanaam tey booy xool article dix-neuf bu déclaration universelle des droits humains de l'homme dañ lay wax ne euh, loolu droit fondamental maanaam nit ki dafa war a am sañ-sañ mu mu génne li nga xam ne moom la xalaat hmm. ci wax ci bind ci mandarga euh, niitaal wala lu mu mënti doon waaye nag dama ci toftal ne liberté d'expression maanaam may na sañ-sañ nga wax li nga war a wax wala li nga bëgg a wax waruloo jox aussi sañ-sañ nga jalgati ak ak yelleefu keneen maanaam beneen doomu aadama mu doon mu doon ministre mu doon président de la république mu doon sax un citoyen lambda yow mi ngay mi ngay exprimer li nga xalaat waroo ko warul tax nga nga nga xaawi orma ki wala nga nga atteindre dignité hmm. donc loolu nag moo tax ñu ne liberté d'expression dañ ko war a encadrer. <laughs> parce que man jàpp naa ne. buñ ko encadrer ku ne dina ci gis sa bopp waaye nag dañuy tollu ci. jamono boo liberté d'expression wante responsabilité tam. responsabilité bi waaye responsabilité mooy que ne yow war li ngay def fexeel ba doo laal vie privée nit ki hmm. maanaam doo ko atteindre ci droit à l'image

qui ki du du du du lit ordinaire en disons à ah, dafa Ben Ben Ben Kirai kiiraay bu mu yor muy que ne ministre de la république euh, donc en plus euh, premier ministre donc jàpp naa pour euh, pour wormaal institution rek amna cadre yo yoo ne peut-être ni ko wara a waxee dafa war a teggine waaye terewul nit war na mëna wax lu mu xalaat mun nga né man dégg na ab kilifa mu wax léeg-léeg li waaye man sama xalaat ni la ci gis mais bo boo duutee baaraam directement nga wax ni ki ne ko lii la wax té fekk waxul lolu bu boobaa ya nga andi ce qu'on appelle euh, de la diffamation waaye nak lolu dañuy bayyi ci attekat bi mom mu déterminer ndax li dañuy tollu ci propos injurieux manam saga wala xoti ormo wala bok diffamation manam nga nga teg loo xam du dëgg nit ki donc man japp naa ne loolu lu ñu wara a la ci li mhm. ñuy doxalee ci waxtaan ci biir réew bi mm. en matière de de de liberté d'expression parce que liberté d'expression du rek mm. euh, du rek yow mii journaliste bi li nga war a waxee mm. waaye aussi euh, citoyen bi li mu war a waxee dafa am fu mu ko war a teg ba du du jalgati yoon jalgati yoon mooy nga atteindre voilà Déni na ñëwaat ak yow wéyal waxtaan wi de Déni Ndour laataloon dañuy ànd ak euh, professeur Ousmane seen teew na professeur Ousmane seen di directeur di WARC professeur ñu ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu bu baax. yow euh, ban gis nga am ci coow lii coowal Bah Diakhaté. waaw d'accord waaw ki njëkk wax sax man d'accord nag moom mais nag du ma ne rek koo xam ne ki dafa am ndombol tànk doomu aadama bu nekk dañ ko war a jox respect ak worma am na loo xam ne lii yëkkati sa baat taal sa euh, ordinateur di ko wax 17 million de Sénégalais di ko dégg àddina si yëpp di ko dégg. war nañ ko seetaat te nag mu ngi jolli ci dëkk bi parce que quand teraanga ak wor defalal ma ci njëkk ak teraanga loolu lañ xam ñun li ñuy wax ci wolof mu nga xam ne mooy première langue Sénégal njekk ak teraanga ak wor ma ak sutura yooyu la ñuy wax ne ñooñu ñooy vertu cardinal yi nga xam ne ñoo téye Sénégal mais dafa mel ni tam ne loolu gars yi dañ wane ne mosta am fii ak am na benn euh, kii euh, benn kàddu goo xam ne gi dafa law temps yii te avant mosuma ko dégg même su fekkee ne kàddu gi existe na te ñu koy wax kàddu boo xam ne en français insulteur teg ci nag insulteur public ñi may déglu nañ ma wax depuis quand lañ dégg expression boobu ñu koy utiliser tous les jours ça veut dire que donc am na loo xam ne lii mu ngi gàkk véritablement ci dëkk bi gàkk aussi ci jeu politique bi te war nañ góorlu pour quand même essayer nasaxal ko parce que man dama koy faral di wax élage dama ne politiciens yi dañ fi nekk pour jëriñu jëriñ réew mi mais am na yoo xam ne yu bari yoo xam ne yii suñuy xeex dañ koy moytu bon ndax ne wéy mais vote bi dañ ñuy sàcc dañ ko dem sécuriser euh, fichier électoral bi baaxul nangam nangam dugg fii génn fii jël ay ndaw ñuy dem di jaxase ak di saaga yooyu moom soo ko utiliser à partir soo toogee bañ utiliser ko contre yow tu es devenu l'arroseur arrosé jumtukaay yooyu daal su ma doonoon waa politiciens yi war nañ def le tout pour nasaxal ko mhm. pour que nag civilisation bi ñu xam ci dëkk bi ñu xam ko parce que téye sa rajo téye sa téléphone téye télévision di saaga nit rek te xalaatoo ne kooku mais doomam yaa ngay dégg la borom njabootam ngay dégg te surtout su fekkee ne li ngay wax dafa taxawul. Ah, professeur li ngay wax ni sànq yaa ngi wax arroseur arrosé ñu bëri wax ne ah, xëy na ñoom waa Ousmane Sonko yooyu ba leen leble woon nañ leen di fay jamono ji ndaxte danañ dégg seen kàddu bi nekk woon ci opposition bi. waaw mais mais mais xam nga mais xam nga ah, xam nga fayante fayante du jur jàmm. man li ma bëgg Sénégal yi xam mooy lu bon bon bon su fekkee ne am na loo xam ne lii war nañ koy roy ci Ousmane Sonko ak joomaay mu doon li nga xam ne ñu ngi ko doon def mu doon lu rafet parce que Ousmane Sonko ak Diomaye nag am na loo xam ne lii roy nañ ko te dañ ko ci fi fekk bañ lañ falee nit yi ñu ngi doon poser quelques question fan la ñuy teg sëriñ si sëriñ si lañ njëkk a jox gëdd dem seeti leen te gis nañ président joomaay yarute bi mu wone dëgg dëgg ci mag ko ngeen image boobu que suma xarit Aminata Beng Ndiaye mu dem seeti ko parce que xam na ne kii munta dox mu dem lu rafet rek lañ commencé di wone nañ jéem a topp loolu waaye la nga xam ne ay musiba la woon ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom di ko def xëy na mun nañ leen critiquer ne waroon nañ ko arrêté ca temps booba waaye kuy ut nguur dafa mel ni da nga da nga da nga da nga da nga kii da nga da nga da nga doon kii gumba da ngay gumba amuloo bët amuloo da ngay gumba mhm. da nga gumba maintenant nag la ñu mën a ubbi seen bopp gis na lii kat du doon lu rafet mais buñ leen ci topp ne ñoom loolu lañ doon def dañ leen koy def loolu c'est pas du defar dara lu rafet mhm, leen dimbale ñu yóbbu dëkk bi ci fi nga xam ne moo gën a baax parce que ndaw lañu mais yi nga xam ne juum nañ te di ko doon def bul leen ci topp loolu du lu baax mhm. professeur nañu àndaat ak yow laata nañu àndaat ak euh, Déni Ndour ngi jeex ak moom euh, Déni euh, tey ci wàllum sañ-sañu wax sa xalaat naka lañ ko war a encadrer ba nga xamante ne ku fi nekk di nga xam euh, foo war a yem loo warul dépasé ku nekk euh, daal di yem fa nga war a yem euh, sa diggante ak sa moroom. waaw loolu lu am solo la El Hadj man jàpp naa ne fi ñu koy dooree sax muy nit ci boppam maanaam li ñuy wax l'autocensure yow sa wàllu bopp war ngaa xam ne kaddu yii may génne de ndax ban jeexital la war a mën a am ci ki nga xamante moom laa ko jagleel loolu dafa am ñaareel bi nag li ci des moom yoon moo koy tënk maanaam tey nañu war nañu privilégier un débat d'idées maanaam waxtaan boo xam ne waxtaan bu sell la boo xam ne dafa lalu ci xam-xam dafa wa dafa lalu ci respect ak njekk ak teraanga comme ni ko professeur waxee waaye loolu pour ñu def ko il faut que aussi euh, les médias am loolu buñ ci joué parce que damay gis tey des fois yenn débat yi euh, yoo xamante ne wala nit ki mu koñ wala mu def mais l'animateur ou en tout cas celui qui anime le débat moom daf koy bàyyi continuer ba xam ne day a euh, des médias à diffusion personnelle nga yow vidéo WhatsApp wala TikTok rek ngay def li nga bëgg hum. aussi euh, yoon moo war a réguler loolu xam nga yàgg nañ sax ne dañu bëgg def benn loi mhm. sur la régularité euh, euh, pour la pour la gestion en tout cas de de voilà la une législation ci li ñuy utiliser réseaux mhm. sociaux régulation des réseaux sociaux ne lu mhm. war a mën a am la waaye buñ koy def aussi nañu fexe ba du ñu gàllankoor liberté d'expression waaye ñu fexe ba lépp ñu teg ko ci ci yoon teg ci yoon nag mooy fexe ba lépp loo xamante ne day day day door hormonit ki wala muy koy nasaxal 牛牛。

kaso man ndax ay xalaatam ak yooyu am na yeneen daan yu ko mën a daal lu dul yóbbu ko kaso ndax wax sa xalaatam. waaw. Deni Ndour Deni Deni laay laaj moom en tant que organisation droits de professeur. waaw man jàpp naa ne loolu loolu aussi euh, lu war a mën a nekk la xam nga nit ki rek du rek euh, sa sanction rek mën nañ la yóbbu kaso téye la fa euh, te fekk xëy na am na neneen lu ñu la war a mën a sanctionné sanction warul yem rek limité ci kaso. parce que euh, gis nañ fi li fi xew dernièrement abus yi amoon ak ñi nga xam ne leen di tëj ci xëy na sax loo xam ne ñoo ko def te xëy na lañ leen di dóor ci ci ci ci euh, sanction dafay jéggi daayu par rapport ak l'ampleur ak li nga xam ne moom la ñu def gis nañ gis nañ ko fi ci ay journalistes gis nañ ko ci fii ak ay activistes yu ko def donc man jàpp naa ne euh, loolu pen alternative lañ ko mën a tuddee maanaam nit ki mën nga ko dóor loo xamante ne dina ko corriger te du tere ah, doo ko yóbbu kaso Euh, euh, yàqal ko lu bëri loo xamante ne xëy na euh, rëccu ba mu waroon rëccu wala mu gisaat boppam nga woonaat ko ne tegaat naa la ci yoon sax xëy na day day xaw a demee boor parce que da nga koy poussé à une révolte parce que dina jàpp ne peut-être fi ko yóbbu loolu jéggi na daayoo par rapport ak lu mu day te te aussi dañu homme politique yi aussi dañu am dañu war am li ñuy wax esprit de grandeur maanaam politique fair play la du rek dañ la war a saaga nga nangu déedéet loolu kenn du ko permettre mais aussi am na yoo xamante ne dans un débat d'idées xëy na yoo xamante ne newul nit ki mën nga ko bañ a wax da ngay fen mais nga ne ko ah li nga wax de man d'accord ma ak yoonu ci yow waaye ak yow waaye nii laa gisee. Mhm, man de gisee naa neneen man de nii laa ko mhm, jàngate. jërëjëf donc am na ni nga war a wootee mhm. wax ji. ba nga xam ne nit ki du gis boppam. ba mu jaral ko mu def lay porter plainte. jërëjëf jàpp naa ne foofu la ñu war a andi sant kay gërëm moom mooy ñaareelu njët bu LSDH euh, kuréel gi di Ligue Sénégal des droits may jeexal ak professeur euh, sànq euh, ci wàllu woowu yow lu ci sa xalaat maanaam ñu fexe daal ba nit du dem kaso ndax joxe xalaatam wala wax lu mu xalaat. waaw mais xam nga aussi Ndiogou dafa loolu dafa am fu mu yem waaw soo ne duñ ko yóbbu kaso dootu yóbbooti kaso nga ne nag mais jox nañ la pénalité sa waa ji na nga ko jox ndàmpaay di million suñ toogee at dix million boobu million bi sax mun loo ko génne naka la ñuy def yow da ngay mujjee kaso da ngay mujjee kaso parce que pénalité boobu su fekkee ne mun loo ko fay il faut nga dem tëddi ko kaso donc dans ces conditions li ñu war a wax daal mooy nañ tàggat nit ñi te loolu politiciens yi ñoo ci war a njëkk yéen gëm ngeen ma man ngeen àndal man ngeen ay sànnil xob bëggoon naa lépp lu ngeen def ngeen jaarale ko ci worma ak ci njekk ak teraanga yàgg naa ko wax am na ay mbóot yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi li gën a bari mu ngi laxasoo ci politique bi <laughs> soo toogee yow sa bopp ne bésu sàngam nañ dem euh, euh, kii sàmmi suñu vote pour sàmmi suñu boktuwaat parce que dañuy sàcc mais téeméer ay téeméeri nit ñu ngi lay bëgg ay de suñ gisee loo xam ne xamuñu ko ñu ne suñu suñu suñu suñu leader bi moo ko wax ñu bëgg a sàcc te loolu amul su fekkoon ne càcc kay yomb na kon dans ces conditions ñi fi gagné élection yi duñ ko gagné puisque ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci pouvoir ñoo perte te bëgguñ woon a perte donc politiciens yi il faut que daal ñu gën a rafetal encore débat bi ak jëfin bi ci terrain politique sellal ko. pour dalal nit ñi pour que ñu xam nga dem voté ji wala dem def meeting que mu doon loo xam ne lii da nga koy def te sooy dem sa xel dal sooy ñibbisi sa xel dal te nit ñi aussi nga xam ne ñu ngi yore seen euh, téléphone wala ñu ngi yore seen ordinateur ci seen kanam nañ xam ne ah lépp lu ñuy wax mais ay kilifa yu réere ñu ngi leen ay dégg am na ñoo xam ne ñi mat nañ leen mag am na ñoo xam ne dañ leen yaay ak papa te ñun nañ ñu yaree am na kàddu yoo xam ne yi doomu aadama loo ko génnee mu dégg mu dem sa nopp papa wala sa nopp yaay wala sa nopp nijaay suñ ko tegee foofu rek kon appartement wax ji nañ ko sellal te sa sellal wax ji cela ne veut pas dire da ngay perte élection au contraire dëgg-dëgg loolu moom war nañ ci gën a góorgóorlu pour que deru Sénégal ñu gën ko rafetal rafet na ci bépp fànn mais nag fi mu ne teraanga bi ñu doon wax ak sutura bi ak maandu ak kersa ak ormal loolu yëpp gars yi ñu ngi koy yàq te loolu nag su fi jógee dara dootu fi des. Mhm. jërëjëf professeur.